ñi ngi fas yéene dellusiwaat ak yéen ci émission bi nga xam ne baaxoo na di ko ànd ak yéen ci seen site bi ngeen xam di MTV Sénégal ngeen ci ànd ak seen mbokkam daara Alioune Cissé ci téere bi ñu dee al axdariyu fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu biñ fi mujj borom téere bi mi ngi doon jàngal li nga xam ne mooy faratay julli tey nag borom téere bi mi ñu bëgg a jàngal li nga xam ne mooy sunna yi julli moom lañuy ñu téere bi bëgg a jàngal tey mooy fi téere bi di waxee naa wa sunnanuha ba jeex mu ne wa sunnanuha sunnay julli al iqamatu bi ci njëkk mooy liqaam wa suurati allati ak saar wi nga xam ne baadal fatiha moom ngay jàng ginnaaw fatiha nee na sunna yi daal bi ci njëkk mooy xam waaye bu ñaareel bi mooy saar wi nga xam ne moom ngay jàng ginnaaw bu faatiha jeexee wala aay yi ngay jàng bu mu ci mën a doon loolu euh, sunna la waaye naka noonu wa ak taxaw bi ngay taxaw di jàng saar yi jàng saar yi la waaye taxaw bi ngay taxaw di jàng saar tamit euh, sunna la waaye naka bokk na ci sunna yi wa sirru yeelu mooy wax ci suuf fii maa yu sirru fii ci fi nga war a wax ci suuf comme lu mel ni tisbaar ak takkusaan nga xam ne da nga war a wax ci suuf wax gi nga koy wax ci suuf loolu sunna la waaye naka noonu wal jëxaru béral muy wax ci kaw fii maa yu jëxaru fii fi nga ko war a def loolu tamit sunna la ku mel ni timis ak gée ak suba yooyu nga xam ne da nga war a jàng ci kaw jàng gi nga koy jàng ci kaw lool sunna la waaye bokk na ci sunna yi wax sami allahu liman hamida wax sami allahu liman hamidahu loolu tamit ci sunna yi julli la bokk waaye ba tey bokk na ci sunna yi wa kullu takbiratin bépp kabaar sunnatun sunna la ilal ula ba mu des bu njëkk ba mboolem allahu akbar yi nga xam ne yaa ngi koy wax ci biir julli yëpp sunna la booy si jooteeg boo si si joot yooyu ngay wax yëpp sunna la ba des bu njëkk ba muy takbiratu ihram bi moom la la waxoon ne boobu farata la waaye bu dut boobu allahu akbar yi nekk si biir julli yëpp sunna la waaye naka noonu wa tashahudaani ñaari taay yi ñaari taay yi wal julus lahuma ak seen ñaari toogaay sunna la bu dee julli ñeent rakka ñaari taay lay am deuxième rakka ak quatrième rakka waaye ñaari taay yëpp sunna la waaye naka noonu seeni toogaay tamit toog bi ngay toog di taay tamit loolu tamit sunna la waaye bokk na ci sunna yi wa taqdimul fatiha ngay njëkk a jàng fatiha ala surat ci saar maa bokk na ci sunna ngay jàng fatiha ba mu deex door a jàng saar loolu tamit sunna la nga njëkk a jàng fatiha waaye naka noonu bokk na ci sunna yi wa taslimatu thani sëlmalu ñaareel wa thalis ak bu ñetteel lil maamumi ñeel maamum yow mi nekk ci ginnaaw imam dañuy bëgg uh, nga def lu mat ñetti sëlmal boo defee bu njëkk bi asalaamaaleykum gi nga njëkk def sa côté ndeyjoor sa julli jeex na farata ji foofu boobu mooy farata ji léegi nag bu dee imaam moo lay jiit dañuy bëgg nga jox ko benn muy muy ñaar bu dee am na ko nekk sa côté mooy nga yóbbu fa benn muy ñett kon ñaar yi ngay mujjee def yooyu nag ñaar yooyu nee nañ sunna la salmalu ñaareel ak salmalu ñetteel bu njëkk ba mooy farata mooy bi jeexal julli gi waaye nag maamum moo koy def la wax hmm. waaye naka noonu wal jëxër ak biral bi taslimatil waajibi ci salmal bu war bi salmal bi ngay njëkk def nga wax ko ci kaw mooy bi nga xam ne mooy jeexal julli gi mooy première bi nga wax ko ci kaw tamit loolu nee na sunna la waaye bokk na ci sunna yi was salaatu ak julli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam julli gi nga julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu sunna la kom dernier taay bi boo waxee attaxiyaatu ba mu jeex dañuy bëgg nga julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli googu nga julli ci yonent yàlla muhammad mi sunna la ndonte an na yeneen ñaan yu fa ñëw ñaan yu gudd sax nga xam ne boo ko doon taaya di ko di ko fa wax amaana dana yàgg lool mais daal julli gi nga julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa loolu sunna la waaye bokk na ci sunna li wa sujud sujud alal anfi ci sa bakkan wal kafay ni ak sa ñaari tenq waru ko ba tey ni ak sa ñaari bati om wa atrafil xadamay ni ak sa cati baaraam maanaam bokk na ci sujud sunna yi mooy boo sujudee nga teg sa bakkan bi ci suuf waaye naka noonu teg say ñaari tenq ci suuf sa ñaari bati om ci suuf say cati baaraam nga samp ko ndax yàlla yi noonu ci ñun dana wax ne yàlla digal na ko muy mu koy sujootal ci juróom-ñaari cër juróom-ñaari cër nag mooy jëbi ak ñaari loxo yi ak ñaari oom ak cati baaraam yi baaraam yi dañuy bëgg boo sujjootee nga samp ko maanaam ñaari baaraam yi mag yi bu mag bi ak yi dend ak moom dañuy bëgg boo sujjootee nga taxawal tànk bi nga samp ko kon mi ngi noonu yooyu yëpp ci sunnay julle la bokk waaye bokk nag ci sunna wa sutratu saatar li xayril maamumi ci ku nekkul maamum waaye wa aqalluha li gën a néew ci saatar xilaasu rumxin dafay dijj comme bant xeej wa tuuli guddaay bi lay doon waaye mu nekk taahirin mu nekk lu laab waaye saabitin mu nekk lu sax waaye xayra mu was waswisin bu mu nekk loo xam ne dafay jax-jaxal saatar nee na ci sunna yi la bokk saatar mooy lan mooy li nga xam ne nit ki da koy teg ci kanamam buy julli ngir bañ ko jaar ci kanamam mooy lan ak nan lañ koy defee ak lan la war a toll loolu lay leeralal nee na lum sew sew sew war naa tolli comme bantu xeej bant xeej booy seetaan film arabe yi mooy loolu nga gis ñuy jamante noonu bant yooyu ñël di ko sànni pour mu jam nit ki lu mu sew sew war naa bijji koom noonu bu dee xamoo loolu boo koy misaal da nga koy jël comme lu mel ni bantu peel wala bant rato noonu lay xaw a toll lu mu sew sew li ngay teg sa kanam war naa war naa dijji koom noonu waaye guddaa bi war naa tolli xasabu comme lu toll ni loxo ba ci conc wala lu ko kawee tuuti lu mu gàtt gàtt gàtt war naa toll noonu ci guddaay yaa ngi dégg waaye li ngay teg sa kanam tamit na nekk loo xam ne lu laab lay doon lu laab lay doon waaye na nekk loo xam ne tamit fi nga ko teg du fa jugee mu nekk saabit nekk lu sax comme exemple tey boo fa tegoon aw bëy mën ngaa kabar mu dem boo fa tegoon xar mën ngaa kabar mu dem kon li fay teg dafay nekk loo xam ne boo ko fa tegee du fa jugee fekk ngay pare waaye xëy na mu waswisin bu mu nekk loo xam ne tamit dalay lay jax-jaxal maam bu mu nekk loo xam ne dafa am ay bind wala mu am ay dessin wala mu am ay couleur ba nga xam ne boo kàbbaree ëllëg nga concentré ci julli gi waaye moom ngay mujj di xool ba nga xam ne li nga war a concentré ci julli gi doo ci concentré boobaa nga moytu lu mel noonu kon gis nga saatar li muy simple sama ndekete am na ay charte kon nekku nit ki lu ko neex doo teg aw dàll wala nga teg ab loo xam ne faju dara déedéet kon lu mu gàtt gàtt neen la war naa toll ni xasabu ci guddaay mooy lu jege euh, loxo ba ci conc lu jege lu war na ko toll waaye lu mu sew sew war naa dijji comme bantu xeej mooy lu toll ni bantu rato wala bantu euh, peel war naa di jee noonu waaye tamit bu mu nekk loo xam ne lu lay jaxase loola na nekk loo xam tamit fi nga ko teg du fa jugee fekk ngay pare kon yooyu yëpp bokk na ci sart yi nga xam ne sart ah, ah, kii la saatar kon xam naa ko ñu ngi doyal loolu foofu la sunna yi yem ñu doyal loolu ba beneen di wax ne lépp lu ci leer yàlla la lépp lu ci lëndëm ñun ñi di wax ak la ki nekk nag ci kàddu gi ci yéen seen bokkam daara la Alioune Cissé di wax ne in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Musakmo